mais Mbër nuyu naa la. waaw bëgg naa la naka waay. ci loone waaw sant yàlla bu baax a baax alhamdulilah. da ngaa bàyyi bëri. non bàyyi moom maa ngi ji. yow dama am problème mu biir bu métti mais sant yàlla comme yàlla def na ñu ngi wàcc entraînement yi ñëw ànd ak suñu rek incha allah waaw. mais lépp jàmm ziar naa leen namu naa leen. Eh, naka ngeen andee Tapha. waaw Tapha moom li ñu koy nee dal na xel parce que comme ni ñu waxee léegi rek moom benn instant yàlla moo ko ëpp kattan na toog ci tànkam zéro ko daan su bëree gis naa ni da koy daan su xeexee da koy duma man moom gis naa loolu ko a ci làmb ji waaw. waaw jaar nañ leen bëgg nañ leen. mais nuyu naa. fay naa la doom yaay. ci loole waaw maa ngi nii rek. te naka ngeen andee seen booy. waaw booy bi xanaa ñaanal ko yàlla may ko rek dal dal ñëw bëri. defe naa ne bi mu ñëwee Rock Énergie léegi bi mooy deuxième sortie. waaw bi mooy deuxième sortie sortie bi jàll yàlla dafa doon mu am ci defet mais bii ño ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko ndam lu sedd yi waaye loolu lañ koy ñaanal mais Mbeu yaa ngi ñaangal. <laughs> non ñaangaluma sax. looy ko lamb ji rek. nu ñu war a daanee booy bi. booy bi tën na leen. Ah? mais adversaire la dañ koy jox li moom rek. combat bi tey lan la laaj. dal ku gën a dal rek moo mën sa morom. te loolu lañ andi tey dal. incha allah. kii daf mel ni wóos la de. laa gis si làmb ci làmb. waaw gannaaw bi ñu sant yàlla julli jant bi gërëm suñu waajur la parce que euh, jóge ci écurie ñëw ci écurie dafa metti kon tey ji bu ñu amee suñu rakk ñu ñëw suñu wet kon tey ji bu amee combat dañ ko war a ñëw taxaw dooleel ko waaw. ci écurie bi mu ñëwee premier sottam da cee am defet mm-hmm. waaw nag loolu nag loolu nag lañ ñu bëgg ñoo effacer defet boobu tey indil ko ndam tey moo tax ñun grand ñëpp ñu ñëw pour ànd ak moom. combat bi paas lan la manqué woon. no bi passé xam nga comme da doon doog a ñëw comme en presse dafa egsi rek yàggul combat ba egsi xam nga aussi jëluñu ko jëluñu ko jëluñu ko au top daal nañ ko waroon a jëlee moo tax nag léegi nag bii nga xam ne préparé nañ ko ni ñu ko war a préparé ñu ànd ak moom pour ñëw yàlla may ko ndam. lan la manqué woon ci combat ko ci combat bi. yàlla daal nañ ñaan ñu naan may ko ndam daal mais bii moom moom moom dina ut ak bële lool moom. dina am xeex parce que bee xeexu leen bëreewu leen. non bii moom lépp lañ préparé. indi rek lu adversaire bi indi ngeen waa Kaaw Tafa mbër yaa noonu loolu lañ fi andi woon tey cumu kaay la ana Tafa sax Tafa da ngeen xamul fan la dugg kaay ko dóoraat la tey kan ngeen andeeti kan ngeen andeeti. non tey Talfa lañ andi doomu Cambérène bi. waaw ah. di nuyu waa Wassare yëpp di la jox seen wàccuwaay particulièrement yow ah. ah yow nga xam ne da ngaa bokk si journaliste say yàqoo da defar Talfa nag la ñuy ngëm andi ko tey di ñaan suñu borom nga xam ne moo ndam yàlla ñu suñu borom suturaal waa Talfa laa andi. <laughs> ñu xam ñu gis ko mu nekk xale boo xamante ni am na jom bëgg na li muy def nangu na entraîné mais lan moo lan lan moo ci des. non dara des ci xale la nee naa ko yoonu ndaw du gaaw mi ngi entraîné mi ngi bëree dañ koy ñaanal yàlla rek mu àgg fi ay moromam àgg léegi sax maa ngi tooñ góor a ko léegi comme maa la yoroon léegi Talfa mooy sama mbër léegi moom damay jël léegi rek jox ko maa ngi koy tooñ di ko waxanteeg moom mais champion la boo xam ne yàlla na ko yàlla fal cat bëgg na li def nangu na entraînement te gëm na li muy def ñu ngi koy kontaan nañ ci jërëjëf merci beaucoup. jàpp benn benn la wala ñett ñett. jàpp taxal jàpp. waaw def da jàpp. waaw ah looy def da ngay ah damay def ay affaire. waa des. ñu ngi lay nuyu. waaw maa leen di noo ñëwee tey. waaw ñëw waaj rek. Uh-huh. indi concentration. loo indaalal sa adversaire bi. sama adversaire tey ñëw rek pour jël si sama ndam incha allahu rabbi. Ah, xam nga ni du yomb. waaw bëgguñu sax lu yomb. li nga wax moom loolu la wax te ñaari dëgg mënut a ànd. non incha allahu rabbi yàlla mi may ndam yàlla nañu yàlla may ndam mais pare nañ lépp lu ñu war a def. lépp lu ñu war a def. pare nañ ko te incha allah bu duggee ci géew bi dina xam ne kii mooy bëre pare na bu xeexee bu bëreeg lépp incha allah damaa jël sama ndam te incha allah yàlla mi maye yàlla na ma ko yàlla may bu xaaree incha allahu rabbi li ci kanam raw li bët dañoo gis Rock Énergie ñun doon gëj a gis tey ñu gis leen tey sa bés waa tey loolu mooy yoon parce que tey ñun liñ bëgg mooy parcelle ak couleur Rock jëm ci kaw ci kanam boo gisee tey loolu mooy xàccandoo dóorandoo bi te incha allahu rabi am nañ yaakaar ne loolu ñu bëgg dinañ ko am incha allah. sa digganteeg liis lan moo la ci may ndam lan nga yaakaar ne moo lay may ndam tey. waaw li ñuy yaakaar ni moo ñuy may ndam yëpp def nañ ko. li si des ci digg géew bi laa ci digg géew ko te incha bu ñu demee si wir géew bi dinañ ko appliqué te gëm nañu yàlla dina ànd ak ñun incha allah dina am xeex dina am lépp nee na curuxu curuxu la combat bi jeexee lépp lu mu préparé rek dina ko fekk bu soobee yàlla suñu borom tuus bi lan nga waajal gars yi tuus tey ci géew bi laa waajal gars yi yàlla ñu yàlla may tarak fekke xoolal Matal Faak waa Cambérène waaw sant yàlla rek sant yàlla rek sant yàlla rek di ñaan suñu borom ndam. mais Talfa tey waa Cambérène yëpp dañoo génn. waaw sant yàlla rek lépp ñoom la ñoo daal ñuy jaayante rek. bilaay. toll ni moom sa adversaire blessé nga nekk ci boobaak léegi bàyyi woo foo toll. waaw gis nga santaat yàlla rek instant bi moom duñ ne pare du ne duñ ne préparé pare nañ yaa may dégg di ñaan yàlla suturaal ñu tey si bisu tey bi mais ñun ndam ci kaw 2000. waaw te mu nekk ndam lu ñu jig tamit ndax waa daaru soxla nañ ko sama waa Ikiri soxla nañ ko man mi aussi soxla naa ko combat bi dama koy bëree ñetti ñetti ñetti mu koy bëree sama waa koñ. di ko bëreel sama waa ikiri di ko bëreel sama bopp kon ñetti camp la te xam nga loolu moo waral lu waral loolu mooy fi ma jógee ma li ma def ak fi ma jógee da nga jógee ci combat bu amoon coow nga ñëw ñàkk si waaw ma ñëw si te woon sax ñàkk mais amaana jaam ak pexam yàlla ak dogalam ma santewaat ko yàlla mu wane la waat ma lu bëri tamit ci làmbu di ñaan yàlla bisu tay bi yàlla suturaal ma may ma ci ndam waaw loolu laay ñaan quoi amul leneen lu may wax loolu rek la bonne chance ba ci kanam inshallah merci xayta ci loolu waaw maa ngi nii la lépp men waaw grand combat la sax incha allah. Ah. waaw loolu fan la. le 20 mars. Ngalanu Diouf. Ngalanu Diouf waaw Ngalanu Diouf waaw. kon dafa mel ni yeboo nga waaj sapeur moom day yéen rek yóbbu. maa ngi waaj bu baax sapeur citerne bi du am ndox. ni nga ko de oto bi du am eh, du am gasoil. bu mu jëlijee kenn incha allah. baax na ci kanam waaw jaajëf ñoo fare. tànk ba ba nu mu ko vite fait bien fait Talfa daan na Talfa daan na ko waaw waaw xoolal ma waa Cambérène yi Ibou Ka jëlal ma lii Ibou waaw waaw xoolal ma xale Talfa xoolal ma Talfa la mu mobiliser daa jàpp tànk ba dëj ko. Talfa am na ndam Talfa am na ndam waaw. Ndao nuyu naa la. allo maa lay fay. ci loone sant yàlla bu baax. gars yi namm la de. waaw am nga maa leen gën a namm. incha allah tey yàggadul. waaja ah moom laa la wax maa ngi waaj combat combat bu mag incha allah. yow moom ku ne xam na sa bés du yomb. ah loolu moom lépp ngëm-ngëm la nit lépp lu mu def taa moom ngëm-ngëm tey ko tey man lii dama ko gëm tey incha allah maa ngi bu mag. baax na kon ñoo ngi sa bu sottee rek. waaw daa mel ni pare fi mu toll nii pare kare waa Kër Saalum ñoo ma yeb. te incha allah koy koy dajal. Bébé Ngaay. Bébé Ngaay waaw Bébé Ngaay waaw bi kir dafa mel ni booy waa Ngaay dañ koy yeb. waaw mais man waa Kër Massar ñoo ma yeb waa Darou Missel. barke alxuraan kare waruma leen jumloo benn yoon. te incha allah ci kanam lay leer incha lii nga def sa bopp lii mooy lan lii nu wan keeso meeso reeso. tàngal mante doo ngaaxa. tukuj dakay tukaare. tey eh, naka nga andee nañ ko joow law naa ci bu gaaru. joo kaw ñu njax a jëf indi mam bupp. lu muy tekki. kaa xam. waaw. non man soxla moom xam mais moo tax gone ko papa jaasi yoo colonie yaasi yoo. sa wax yi nag yëpp tey am ngeen bés bu rëy. maanaam ko anooja na gis ka maña nu ka coppa yaay ndam ci papa yaay ndam ci na njaafu waaw tontoo ko ma ma ne bés bi wax tey man naa la li oy kamb yaanu koroson tey nga deede deede wala tafa mbër dee yaa antal minal jamina naka sa bayruta waaw moo moo ñu lii mooy lan. daa gëj a woo Yang Thiam Tapha Mbeur. Yang Thiam il faut progresser loolu gëj ngeen ko dégg. mais nag nee na tey dina woo Yang Thiam. Yang Thiam a ngi nelaw daa bidante dina ko woo ba sonn du wuyu. daa tëj néegam tax écouteur am. te nag andee liis. xaay na bu doon léegi neex liis kenn xelal. liis dof la. wérul. xel bee dem. xanaa nee na liis daa naan ay tante ay bàjjan ay maam ay tonton ñoo tax. xool ko. ki xale la nu ko neex mun na ko toll man maa dul nelaw lu doy sama papa ngën di la waaw dafa rëy yee te ku ne sama papa ñu mu daan sa ta ta ta sama mooy Fatou Mbacke man raxatuwuma barki Alaaji Fàllu bilaay yow loolu kenn du ko beñ waaw man la eken doomu njaago bi seen san Christophe la ñu am milikoo bilaay yow mais Ndiago bi ziar. bien delloo nañ leen ziar bu baax. ci loone waaw maa ngi si jàmm bu wér a wér. naka nga waaje waaw bu pare naa ko waa ànd ak samay mbokk. waaw waajal bu baax. yow jàmm nga ñëpp wuyu si ma. déggu ma. waaw jàmm nga ñëpp wuyu si ñu. waaw di ñaan yàlla may ñun ndam waaw. tey nga diggante sa digganteeg sa digganteeg dafa am mbër keroog bu ñu bëree ki nga xam te mooy Ada bi nekk see ci digg góor ga nga wàcc ñëw samp ndënd ba nga fa jugee combat bi taxaw tey bés bi lan la laaj. waaw parce que ñooñu ñooy samay morom quoi noo daan bëre ñu naan li ñu jox ñu ko ay moromam léegi ñu ñooy sama morom yee maanaam ñu ko jox favori si combat bi ñooñu laa bëgg ko corriger quoi. Euh, keroog bi ñu ko seetsee dafa ne dafa euh, liis entraîné wu. mis dafa dem naan ay affaire am ñëw taxaw. tey lan nga ko nar a wax bu yàqu rek. waaw yéen gis ngeen waaw bu ma entraîné xam ngeen bu ma entraîné. combat bi tey dina eh, kay. bëgg naa am xaalis. non aw sant yàlla. sant <laughs> tey nga andee sa rak. sama rak billaahi liis muy rak juut neex a billaay di ko yeb rek tey bisu dal la ndam ndam kese lañuy ñaan yàlla suñu borom billaay. nag dafa mel ni dafa mer rek. non su meree moom la ñun de dañoo kontaan te yàlla bu yàlla yaa kontaan bi te boobu ba tey ñuy kontaan di soulagé te yàlla nañu yàlla suturaal rek si kanam kanam rek lu si kanam raw bët ku waa booy ku ko xool xam ne tey ndam dëgg dëgg la andi. billaahi na ko ñëpp ñaanal bar sëñ Bamba xale la te daa nekk si yoon dañ ko yónni yaa dafa war a ñëw rek confirmer bi mooy premier grand combat am Tapha Mbeur dem nga sa yoon baaxut booy bi dafa war a dem. billaay wallaay te li si kanam rawali bër yàlla nañu yàlla suturaal daal. billaahi. kontaan naa aja. amiin. siyaar naa leen. ci loole. waaw wasaare ah siyaar naa ñëpp. soo leen dee yéen a am jaamu. tey naka waaw dama ñëw en tant que civil problème rek en tant que civil bu Sobatel en tant que civil problème bu Diamaguène en tant que Sénapeur. mais dina masque bi gars yi xamee ne civil problème mooy wax. waaw mais waaw waaw dama fay ñëw en tant que maanaam Sénapeur dama fay ñëw en tant sama rak la sama doom la ma nekk si ay tolof tolof mu ñëw taxaw si ànd ak ànd see man barke Serigne Bamba fu mu xam mu yóbbu ma fa ba tey cooli fay kon de soo may bés jaadu la quoi ma ñëw jàpp si jàmm

yaa ko wax dina daan dafa mbër jël bu rëy. vaar dafa xew de. non dafa liggéey ba la dafa nekk si yoon. kii la lamb ji di confirmer rek mais lii du lamb mais yàlla nga yàlla suturaal la yàlla yàlla moom. waaw yàlla yàlla ànd ak moom te liggéey la loo xam ne carrément yàlla moom Ousseyn lii képp ko fekk këram barki Serigne maam nga xool situation bi mu dund kenn ku ne di nga moom xaas teral ay man sama xol boobu man loolu loolu yëre boobu si moom barki ko defaral lay bëggee mon frère. ci loone sant yàlla rek. tey nga gis ñaari xale di bëre ñu nekk ñaari xale yoo xam te làmb da leen a bàyyi xel ñoom ñaar ku ci nekk làmb ji mën a laa yóbbu fu ne naka nga gisee ñaari xale. waaw làmb la bu neex. dañuy félicité promoteur bi ñu fi woo Dieye production di félicité Abdoulaye Ndiaye ci liggéeyam bu rafet ci làmb boo xoolee ne làmb ji mel nga xam ni ay xale la yu làmb jox cër parce que boo xoolee amateurs yi ñëw nañu supporters yi ñëw nañu wuy si combat dafa bëri combat mu bu mujj digganteem ak euh, Ada Fass Ada Fass daan ko Liss Ndiago nga gis ci lu mu jugee ci digganteem ak Boy Rëbës moo daan caatu Rëbës muy combat boo xamante ni ñoom ñaar dañoo war a daje pour kenn ki bàyyi fi keneen ki dafa am mbër dafa war a leeral dafa war a rectifié ci li mu def ci digganteem ak euh, Ada Fass Liss Ndiago war a confirmé wala ne damaa bokk ci bi muy combat bu neex combat boo xamante ne nii ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñaar que le kii di Tapha Mbeur naka la bëree tey pour mën cee génn. moo war a diriger combat bi moo war a def lépp pour daan parce que moom mooy mën nañu moom moo xaw may chance liste la ñu mën a wax parce que ba pare moom moo juumoon moom mooy moom mooy jubbantiku te booy jubbantiku yaay diriger yaay def lépp pour daan Liss Ndiago moom it dafa wut si li mu wut si mooy lan digganteem ak Tapha Mbeur dafa am fu mu ko war a yóbbu day ñëw bëre bëre li mu am bëre si ñëw song Tapha Mbeur bëre ñoom ñaar ñëpp yaakaar naa ne dañuy daje mu nekk combat boo xam combat buy neex lay doon. kontaan naa ci merci kontaan naa ci fa. bëgg ma jox suyu baax yi. dama la ci jox waaw la sama waa kër. waa wasaare. loolu am na. mais tey laa neex la de. trop sax ay xale yu koy. Tapha Mbeur Liss Ndiago. gisee boobu quoi. naa la si wax ñaar de Tapha Mbeur combat bi moom moom la war a gën a ñor parce que xoolal fi mu jugee ak fi mu ñëwaat combat bi Tapha Mbeur dafa war a def lu leer jàpp ba mu dëgër doog a bëree mais bu toppee xeex bi xeex bi fi mu ko yóbbu baaxul na def li mu doon def di bëre di daan parce que combat bi dañ kaa gasal pax mais pour mu tàbbi mooy gën a yomb mais moom moo si mën a gënee boppam mais kenn mënu ko see génne. Euh, Liss Ndiago lan mooy avantage am ci combat bi. Liss li avantage am mooy teel a respecté grand bi jox ko cëram bañ a xeex ak moom teel a bëree ji te xam ne combat passement la si moom. kontaan naa ci ah, waaw waaw tey moo gis nga andi Talfa naka nga andee Talfa. non ndam rek jàmm ak salaam la boo gisee xam ne mi ngi ci ñaan yàlla yàlla may ñu ndam mu jàpp waaye daan ko jël bu ñibbi du mat sax deux minutes ñu ñibbi. loolu yomb na rek. non looloo am sax. ala ah. Zoss gëj naa ko gis nag mais mi ngi fi. kontaan naa ak yow. Boy Maroon a ngi noonu ak Sa Cadior numéro 2 Boy Maroon toj na nen abit baa ngi wax ak li làmb nango ak li làmb bañ Sa Cadior moo ñëwoon ginnaaw Boy Maroon moom la ñu lool abit bi laaj na ay jugeem laaj na Boy Maroon laaj na Sa Cadior abit ba sifflé na Boy Maroon a ngay saa kajoor a ngay jat saa kajoor a ngay lewaatoo booy maroon a ngay jat ba léegi dama xamul nag booy maroon bu njëkk ma la wala kan la maroon saa kajoor booy maroon saa kajoor ñoo ngay lewaatoo

naramu. Boy Maroon Sa Kajoor eh bo Sa Kajoor dem na jëli eh Boy Maroon na nga xaar ma ko doomu daanu dina ko doomu daanu na ko xool eh Boy Maroon Sa Kajoor Sa Kajoor lu muy xeexee nii baatu ko doomu daanu Boy Maroon Sa Kajoor xoolal xoolal xale yi lañu bëree waaw bëgg lii ay xale bu jëlee combat dañuy jëflante Boy Maroon Sa Kajoor. Boy Maron Sa Kajoor xeex nañu léegi teg nañu ko ci rek axe Boy Maron Sa Boy Maron daa mel ni xeex bi avantage am la sëñ Babacar nuyu naa la Boy Maron Sa Kajoor Boy Maron léegi gauche eh Sa daw na jëli ko fàq na ko est que dina ci génn mooy xeexaat ak moom dina ko doomu daanu Sa Kajoor xeex bi enjeu la bàyyi loolu dóoraat na ko dóoraat na ko dina ko dóor dina ko rey dina ko rey waaye eh, du bàyyi doomu jàmbur bi bàyyi doomu bi nga eh, ma daw <laughs> eh Sa Cadior ngay daw Boy Maron teg na ko lu metti Boy Maron teg na Sa Cadior lu méttee méttee méttee métti métti waay <laughs> lay la la làmb jaa ngi noonu Boy Maron Sa am na benn avertissement dañ ko dóor ba mu génnal boppam kaay taxaw lu la ci dugal du la ci génnee lu la dugal ci booy mawoon mii du la ci génnee booy mawoon léegi fi mu toll nii xam na ne xeex bay avantage am Sa li mu def li mu mën a def mooy daw jàpp waaye buy dem na leer li li li sama yaa waxoon nee na looy waxati na lay leer buy dem dafa war a leer ba mu ba mu leer ko mu doog a dem. waaye bu demee pour bëgg a dem est que lam fay fekk dina ko arrangé moom Sa Cadior booy moroon daa xeex bee ko arrangé day jàpp benn loxo bëgg koo witti ba mu nooyi booy moroon Sa Cadior ñoo ngay lewaatoo ñoom ñaar Boy Maron Sa Cadior Sa na jël waaye Boy Maron da koy gis Boy Maron da koy seen buy ñëw Boy Maron Sa Cadior waaw waaw dóor dóor doo fayu Boy Maron da dóor Sa Cadior na ko Sakho Diop mbëkk na ko xanaa arbitre bi gisul loolu <laughs> mbëkk amul ci bëre de boo ko defaatee jëlee ca defet dafa mbër la mu andi ci banana orange ki pom Boy Maron Boy Maron Sa Cadior Boy Maron Boy Maron Sa ñoo ngi bëre ñoom ñaar woon saa Kajoor Boy Maroon saa Kajoor xale yi seen combat bi yàgg na waaye Boy Maroon woon naa jeexal làmb ja Saaka Joro ngay dóor Boy Maroon lu def ni moo ngi koy puus Boy Maroon Saaka moo koy daan da koy daan wala Boy Maron sa Kajoor Boy Maron lu mu a def nii da koy dina ca génn da koy xaar tegal na ko 16 Boy Maron sa Kajoor eh, xale yaa ngi bëre Boy Maron ba doo épuisé sa ba doo épuisé sa bopp Boy Maone Sa Cadior Camara lu mu bëgg a coono feeñ na ma ne ko coono dugg na Boy Maroon xale yi bëri nañu ba mi-temps Boy Maron Sa Cadior bëri nañu bëri bu neex xeex nañu léegi xeex bu neex Boy Maron Sa Cadior Boy Maroon Sa Cadior Boy Maroon Sa Cadior arbitre bi àttewaat na yóbbu leen ci diggi géew bi Boy Maron Sa Cadior ñoo ngi lewaatoo ñoo ngi demee wet waa Kajoor am na avertissement Boy Maroon am na benn avertissement saako yi fekkiwul kenn lewaatoo waat nanu ba dem ba ca saako ya Boy Maroon saa Kajoor Boy Maroon Sa Cadior xale seen combat bi yàgg Boy Maroon sa Kajoor Boy Maron saa Kajoor. aja ci loo ne Pape lii bu jeexee nii Boy Maron la ñuy jox victoire de. waaw <laughs> mais mais mais diggante mbay guy gi. ak Zarko. fu ngeen toll ci wàccaay yi. non ñu ngi ci ñu ngi bëgg ñu ngi régul ñu ngi bi mardi bu soobee yàlla jeudi nekk face à face bi fii arène nationale incha allah. mu nekk bés boo xamante ni daanaka jaay na boppam. Mhm. ñaari xale promo bi ci woon ñëpp def nañ ko. Mhm. yeneen booy fu ngeen toll ak ñoom. waaw ah, nu mu tudd sax ah, Pakola ak rakku Reug Reug bi dañ ciy bëre Pakola di rakku Ama Baldé ah, Papa Kan numéro moom rakku Reug Reug la ñoom ñooy ñoom dañ ciy bëre Yankaaw ak Tidiane Faye bu Tëngéej ñooy bëre spécial bi Aliou Seras bëri na ay xam nga ay xale yi ci nekk ñoo xamante ne. bu soobee yàlla stade bi moom ku ñëwul foofu midi damay tëj stade bi. Mbaadu. billaahi wallaahi billaahi mais tamit ah, ma suñu frère mooy tëgg fii Fallou Ndiaye ñun ñëpp benn lañu képp ku ci mënul ñëw rek fële mun nga ñëw fii moom tamit ay journée bu neex la tëgg maa ngi ciy invité ñëpp tamit arène nationale suñu frère la moo fi organisé ñun ñoo organisé Iba Mar muy wan ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay benn lañu daal. Lamba far for. jaajëf di félicité Lions yi. di la jaajëfal. xale yaa ngi noonu ci diggi géew bi booy Maroon Sa Cadior sànq bëre lu neex waaye fi mu toll nii xeexu leen bërewu leen. Sa Kajoor am na trois avertissement Boy Marone am na trois avertissement wala boog Sa Kajoor quatre la am.

kaay bàyyi ko fu ñëwoon Fadel. bésu tuut bërëm lay tolloo. yow kontaan naa ci sama. dama la bëgg. Pokola Jacob Baldé Pokola moo ñu woon ginnaaw Pokola Jacob Baldé Boy Diobass Boy Diobass Jacob Baldé Boy Diobass am na lu mu sànni ci diggante arbitre ba da ngay jël avertissement sànni am nga benn avertissement Boy Diobass Boy Diobass am na benn avertissement kàbbar na ko Jacob Balde Boy Diobass Jacob wàcc na talakaay loxoom Boy Diobass ñaan na tëfli ci kanam nga Boy Diobass Jacob Balde Jacob Baldé Boy Diobass Boy Diobass pareegul moo ngi din téere ba na boobu Serigne am na lay Boy Diobass Jacob Baldé Jacob dafa wàcc ba mel ni kuy bëgg a dem waaye Boy Diobass moo ngi si gën a moo ngay demee wet moom Boy Diobass Jacob Baldé Jules Baldé ko andi Boy Diobass a ngi moo ñëwoon ginnaaw Jacob Baldé la ñu jàkkaar lool Jacob Baldé Boy Diobass Boy Diobass même na léegi dafa bëgg a xeex wala daa bëgg a dem waaye Jacob nee na tekk di ko déglu Boy Diobass Jacob Baldé Jacob cokkaas na léegi gauche droite waaye dalul Boy Diobass a ngi noonu Boy Diobass Jacob Baldé Boy Diobass Jacob Baldé Jacob cokkaas na léegi Jacob Baldé Boy Diobass ñoo ngay xeex Boy Diobass wàcc na Jacob daw na jël ko Jacob dem ñoo ngay xeex Boy Diobass a ngay xeex ak moom téere ba daa wàcc ñoo ngay xeex ñoo ngay xeex Boy Diobass Jacob Baldé ñoo ngay xeex xar na ko xar na ko Boy Diobass Boy Diobass Saka Baldé Abdoulaye Niang ngay bëre Boy Diobass Saka Baldé combat ba metti na combat ba metti na Boy Diobass Saka Baldé Boy Dioba Saka Baldé xaya xeex nañu bëre nañu Boy Dioba Saka ba ngay dóor ci faara teel nga déggal tàcc ngay dégg tàcc demaatal tàcc waaw dóor na ko ba ngay dóor ba kaawul Boy Dioba Saka Baldé Boy Diobass Jacob Baldé xeex nanu bëre nanu est-ce que coono commencé wut a feeñ Boy Diobass Jacob Baldé Boy Diobass daa mel ni ku sonn ah Mohamed nee na ñoom ñaar ñëpp a loolu ba tey mën naa nekk Boy Diobass Jacob Baldé Jacob Jacob xeex moom léegi eh Boy Diobass Ardo Ardo dégg Boy Diobass nee na ma am doole dama duma Jacob dem na Ardo arbitre bi sifflé waat na Jacob Baldé dem na ci ardo ba dellu si waat Jacob Baldé Boy Diobass dafa mbër ngi noonu di lagg waaw liis daw na dem dellu si ngi noonu di daw Jacob Baldé Boy Diobass Jacob Baldé Boy Diobass Jacob Baldé Boy Diobass Zako Balde Zako Balde ñoo xeex Boy Diobass Balde eh eh eh mais Boy Diobass bi pànk la la la Zako Balde Boy Diobass lamb ju Balde naka nga gisee ñaari xale yi Jacob Baldé la mu foogoon ci Boy Diobass est-ce que loolu la est-ce que loolu la fi fekk ndax dafa yaakaar ne kii di Jacob Baldé pank la pank goo xamante ni nii mais tey dafa mel ni dafa commencé daj. Ousseyn boo xoolee Boy Diobass ñu bari ci làmb xëy na dañ koo umpale mais daa mën a bëre tey nag surprise daa am parce que dafa indi xeex boo xamante ne yaakaaruma ni woon ci moom am na ko combat bi mujj daa bëre Thiès moo Pape euh, Pape Mbaye bu Ersan Pape Mbaye daan ko. mu ñëwaat tey war a rectifier erreur am waaye gis nga combat bi tey fi mu toll nii ci ñoom ñaar ñëpp muy Boy Jabaas ak xale bii di nga xamante ni mooy Jacob Balde Jacob nag fi mu toll nii jeexal làmb ji la bëgg mais su doon maay moom damay jege Boy Jabaas jàppante moom bëri ndax xeex ngeen xeex bi arrangé wu la te le fait que ngeen di gën di xeex day gën a am li mu bëgg te Boy Jabaas mi tëwul tëlewul bëre waaye bis bi nag du mun a yomb Ousseyn parce que drapeau bi ki ñu ko tuddee tax buñ nee Fadel moom ngeen di bëre seen drapeau ku ci nekk dañoo war a bëre xeex ba sonn mën a jël drapo ki nga xamante ne ndaanaan la ci presse bi waaye ndaanaan la ci social bi nga xamante ne ci la nekk mooy Fadel Buzz Fadel bu dakaar Buzz. Fadel la noonu ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax suñu mag la waaye booy xool kii di Jacob Baldé eh daw na jël ko. booy jabaas da koo bëgg a jàpp daa bëgg a jàpp te Jacob da koy aspiré di dóor te dóor yooyu muy dóor baax na Jacob pour man muy xeex foo mu jàpp booy jabaas ba pare ko dóor. ndax xeex bi bari bi moo koy wàññi mooy wàññi booy jabaas mais booy jabaas daa bëgg a bëre xeex bi yëpp da koy def mais gëmu ko du lu mu gëm bëre bi moo ko gënal lu mu am fi mu toll nii nag ñoom ñaar combat bi ku ci nekk sa buntu combat la boo xamante ni mën nga cee génn yéeg ci kaw pour nga génn fa yéeg ci kaw nag faw nga bëre bëre bu métti. mais li ma ci xaw a jaaxal mooy Jacob xeex bi avantage am la mais ci biir xeex bi dem na ci ardo dellusiwaat est-ce que amul lu moom. waaw xam nga xeex bi avantage am la ci yenn adversaires yi muy bëreel mais bu ñu xeexee ñoom ñaar corps à corps du avantage am Jacob lii avantage am ci combat mooy mu jàppante jàpp ba pare doo ko dóor moom moo gën ci moom que mu taxaw may ko distance di xeex ak moom en tout cas daal lu mën a xew mooy ñoom ñaar fi mu toll nii. nii ñu góorgóorloo ci combat bi taxaw ku ci nekk wane na ni am na possibilité pour jël làmb ji am na possibilité pour yóbbu ko waaye combat bu nar a metti lay doon. Sako bu ñuy xool bi mu fi jógee digganteem ak Mbagnick la woon. làmb ji ñi la demee dañoo xeex xeex bu métti bëre bu bëre bu métti mais mu jeexee décision arbitrale. est que yaakaar na combat bi loolu mën na cee am. yaakaaruma ko Ousseyn yaakaaruma ne combat bi arbitre moo leen tàqale jox kenn victoire gëm naa ni ñoom ñaar ñi dina am kenn ku daan moromam mais dadul yomb. du yomb ci ñoom ñaar ñëpp ku ci mënti am ndam du yomb ci yow parce que ñoom ñaar ku ci nekk ndaanaan la ku naan diw mooy daan da ngaa far mais ku xam ñaari xale yi xam ne cinquante cinquante la. déggal ma tàcc yi tàcc ngay dégg. waaw foo toll di ko dégg. mais damay xool kii Boy Diobass ni bu ma ko xoolee. Hmm. damay xaw a gis coono. pratiquement hmm. dafa mel ni dama ko gis si Boy Diobass. noonu lay bëree su taxawee yow di léwtoo day rey yaram bi ba mu dee daf may jox Modou Lo Modou Lo buy léwtoo noonu lay def day mel ni li muy def bëgg ko te alal ko boobu mu ngi ci combat boo xoolee combat bi weesu Thiès noonu la demee da cee bëre bëre bu rëy wax naa la ko moo waral sax takkaay yu bari mu wàññeeku lu bëree bëri mu wàññi ko ci moom mais erreur boobu mu am Thiès lay bañ mu dalaat ko fii ci dakaar moo tax. jàpp na Bambaye bu Arsan la gis nga da baax na da koy daan da koy daan wala déet waxoon naa ko a bëree yomb. waaw mais booy jobaas mi fu daa mën a bëree booy jobaas yeggu ko fu sori taxal mu génn ci. takk na ko takk ba bu doon maay saxam damay téye déglu boo jàppee doo xale yi ñi daan ak ñi daanu ñëpp a ngi toog di xaar grand combat mais loolu mooy lamb mais jamono yi xew lu lu lu sof ci lamb ku daan dem ñibbi mais dañu war a toog taaral bis bi taaral grand combat bi loolu mooy yoon mais tamit li ma romb léegi-léegi si convoi Cobra ñuy dem Esat ah. Baara Cobra daa waajal boppam. xam nga guddi la lamb ji lamb guddi la lamb ji nar a neex la. Mamor Ndongolo Mamor Ndongolo. Deux Weeks si Paul bu Daaru Deux bu Daaru arbitre baa ngi naan leen bëre leen <laughs> gisaguma dara ba léegi dañoo xonet kon Deux si Paul bu Daaru Demix Paul bu Daaru eh Paul bu Daaru dóor na léegi bi fi jógee maam ko daan Demix Demix da ngay daanu da ngay daanu Paul bu Daaru plaqué na ko mu daanu Paul bu Daaru Demix jël ba mu jël baaxul Demix jël ba mu jël baaxul Paul daan na ko bool bu daaru mën Fall pour bu daaru moo bu bees tax ana Modou Mbaye Modou Mbaye laa soxla Xaadim am na lu ma leen téewoon mais xam naa ne gëmoo leen ma woon ay science moo ma doon téye mais pour bu daaru kese kese kese du yàgg ak paay yi man dama mën a bëre pire léegi dinaa ko dóor dinaa ko daan incha allahu rabi incha allahu rabi nañ ma xaaraat ci mois de mars bi koy teg. ah mënu koo bañ. mënu koo bañ. kon da koy teg. moom kay bu bëggee. su ko waaw ginnaaw dafa am bopp ginnaaw dafa am bopp ginnaaw dafa am bopp gisoo waaw waaw waaw fexeel nga foto leen ñoom ñaar ñëpp seex naka lépp ñaar waaw waaw Sénégal dañ boole plateau ngir yàlla. Sénégal ay combat wala ko. Waaw. Sénégal combat wala ko. Ngir yàlla. arbitre baa ngi noonu ci diggi géew bi journée Dieye dimanche 13 février ci diggante Liss Ndiago ak ki nga xamante ni mooy Tapha Mbeur Liss Ndiago bi fi mujjee Ada Fass a ko daan bolo boog Tapha Mbeur bi fi mujj Ada Fass a ko daan Liss bi fi mujj moo daan ki nga xamante ni mooy Thiatou Rebeuss ku ci nekk ñoom ñaar am nga benn avertissement arbitre baa ngi laaj ay jugeem laaj na Tapha Mbeur laaj na ki nga xamante ne mooy liis bàyyi ji li gis nga ñaari mbër yi Tapha Mbeur la mooy avantage am ci làmb ji kii liis Ndiago la mooy avantage am ci làmb ji bàyyi ji li waaw Ousseyn ñoom ñaar ku ci nekk dafa am lu nekk sa mënin Liss Ndiago tey su doon maay moom damay jàppante dafa Tapha Mbeur bëre wuureeg moom ci bëre ba nax ko Liss Ndiago tey avantage am du woon xeex ak Tapha Mbeur Tapha a ngi arrière xaw ma na lu muy arrière Tapha Mbeur arrière na génn saako yi sortie délibérée la def loolu nag am na lu ko ci règlement bi wax mbëri nañu bàyyi tegtal bu bari bi ndax tegtal bu bari mën naa yàq làmbam Tapha fi mu toll ni mooy bëre te pour mu may booy bi confiance mooy mu won ni ko dama laa ragal booy bi agressé ko dox ci kawam bëre Tapha Mbeur daa avantage am mooy mu jéem a xeexal Liss Ndiago moom en tout ñoom ñaar ku ci nekk pare na combat bi na combat bi Ousseyn te combat gaaw lay doon. Tapha Mbeur jàpp na Liss wala boog Liss jàpp na Tapha Mbeur abi la léegi door na moom Tapha dooraan na door na ko mu daanu Tapha Mbeur door na Liss ñaar ko mu daanu. bett na ma oh! Tapha Mbeur door na ko ñaari door ko door bu mujj du yoon Ousseyn Tapha Mbeur door na ko mu daanu mais da door mu daanu mu dooraat ko loolu rafetul ci rafetul ci làmb da koo kaaw xoolal supporter yi xoolal supporter dafa ñaaw xoolal supporter yi ña ngay toj siège ya xoolal lii xoolal lii dafa am dafa ëpp doole lii supporter yi lii dafa ñaaw dafa ëpp doole dafa wax naa la ko tekk bi dafa am indi ci làmb ji loolu moo doon làmbam tey dafa am tey ak dal ak tekk la